leen gisee suñu jotaay bi ngeen xam ne waa Paaleen ca kanam ñoo ñëwoon doon leen indiwaatal quelque leeral rek ci li nga xamante liggéey yi nga xamante ni moom lañ ci jot a amal di Paaleen ci kanam di kuréel goo xamante ni moo lëkkale ñëpp képp koo xamante ni yaa ngi ci Paaleen gii nekk Mbàkke ngir ngir jëmale ko kanam ngir taaral ko leeral ko tamit Paaleen doon doon gox boo xamante ni ku fi dugg di nga xam ne du wax bii am na am na changement am na soppiku ndaxte ay jamono ci ginnaaw Paaleen boo fi mosaan a dugg bu 19 heures jotee da nga naan fii moom du ma fi aw ndax lëndamaay loolu nag waa Paa leen ci kanam am nañ ci jéego bu mag a mag boo xamante ne dox nañ ko ci ndaxte boo xoolee bañ tàmbalee seen activité ak léegi liñ njëkk a def mooy dañoo njëkk a def euh, reboisement loolu tubaab naan reboisement moom lañ njëkk a def jëmbat jël lu tollook ñetti téeméeri garab jëmbataat ko ci goxi paaleen yi ak mbeddi paaleen yi ak koñi paaleen yi te kenn ku xam na ne kenn ku ne xam na ne garab mooy doon tawféex gi nga xamante ni mooy doxal ab gox ba nga xamante ni tàngaay wa ak ak ak ak méttiwaayu dëkkuwaay wa du demee noonu loolu la Paaleen ci kanam njëkk a def jëmbat 300 garab ci artère yeeg gox-goxaanu Paaleen yëpp ba mu noppi bi mu noppee Paaleen ci kanam def na consultation gratuite maanaam boo mbooloo woo woo askanu Paaleen ñu ñëw ñu saytu seen wér yaram xool leen ba xam amuñu benn feebar ku ci am feebar ñu wax la ni demal fii nga faju ji noppi tamit defal leen don saa xool ba xam seen seen seen deret ji amul benn feebar yooyu yëpp pa ci def gratuitement bi loolu jàllee nag Paale si kanam ñëw ci éclairage public maanaam ñëpp képp képp xam ñëpp xam nañ ne dund moom mënut a ñàkk sécurité te Paale meloon na mel melokaan boo xamante ni jéggi woon na dayoo ci la waa Paale si kanam indee fi ay lamp yu bari def ko ci ci quartier yu bari ci paleen gi ba nga xamante ji Paalen boo fi boo fi ñëwee 19h wala 20h da jàpp ne yaa ngi ci bëccëg gi loolu nag waa Paalen si kanam ñoo ko liggéey. mu doon loo xamante ni lu am la boo fi ñëwee da nga koy gis à l'œil ngay gis ni lii waa Paalen ci ñoo ko fi liggéey Paleen ci kanam tamit jamono jii ñu toll lii seen lii seen objectif nekk seen nekk jëm seen kanam mooy arrêt car yi nga xamante dañ ko bëgg a def fii ci route nationale bi jëm Touba. mooy am na ay arrêt yoo xamante ni képp koo xam ne da taxaw ci tali bi war a dem Touba wala nga war a dem Mbacké di nga am foo xam da nga toog keru fa ba sa oto ñëw nga dugg ca te doo am benn jafe-jafe ak bi loolu nag ci lañ ci lañ moom lañ mooy suñu sumb bi nga xamante ni moom lañ jublu waa Paleen ci ñu ngi woo képp koo xamante ni yaa ngi yeewoo Paleen moo xam góor moo xam jigéen moo xam mag moo xam ndaw nga ñëw tàbbi ci liggéey bii ndax doon na liggéey boo xamante ni liggéey bu suñu borom gërëm la ndax nit ki nga xam ne fi nga dëkk da ko war a ko war a defar ba nga xam ne ku la fekk naw la ndax si loolu sëñ Manoum Sa Mbàkke moom Sëriñ Tuubaa moo ko waxoon ñaani nit dee defar dëkkuwaayam ba ko ko fekk naw ko kon nag waa Palen ci kanam ñu ngi ci loolu ñoo ngi woo ñëpp di bàyyiwuñu kenn képp koo xamante ni mës ngaa dëkk Palen wala nga dëkk Palen ba jamono jii nii ñu ngi lay woo ci liggéey bii ñu ngi lay woo ci jaayante bii yëfi kat am na woote waaye amul xaare waaw képp koo xamante daal euh, liggéeyal liggéeyal maam Cheikh Ibra Fall ñor na la ñoo ngi lay woo ci liggéey bii nga xam xamante ni gox bi nga xamante ni fi la maam Cheikh Ibra ak njabootam. di di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku di am bu baax nag ci li ngeen xam ne moom ngeen jóg di ko dox si di jëmee lu jëmee paa leen ci kanam rek ci ngeen ne ci ngeen di xëy ci ngeen di gont maam ci xol bu sedd gu nag te di leen ñaanal. sama borom ngeen gën a jëm ca kanam rek li ngeen ci seen ba di ba tax ngeen jóg di ko def yal na suñu borom ko suñu jor man ba ma ko déggee gisaguma leen maam maam Moustapha dama leen di man dama laa woo ne la ñu ñëw ci kër gi boo ñëwee fekk xale yi ndax parent ci kanam moom ñëpp ci war a bokk képp ku nekk parent rek war nga cee bokk di ci dox di ci yëngu te di ci def sa ñaq ak sa doole ak sa kàttan moo taxoon ma leen na ngeen ñëw ci kër gi seet si gone yi bi ngeen ñëwee ñëw am naa ci mbégte bu baax am ci kontaante bu baax ni leen man maa jiitu ci paa leen ci kanam xam naa yëg teel yow gaaw koo yëg waaye bi ma ko yëgee damaa daal di sóobu ci biir rek ñu maam des nga ñëw ba ñuy bind gone yi man nag dugg naa man moom dugal naa sama astur sama àddee dugal naa ko fas naa yéene it lépp lu ngeen néeg yi nekk loola maa ngi sa biir maa ngi leen di jàppale taxawaayu paa ci kanam dama cee kontaan bu ndax garab yi ngeen nekk di ko jëmbat di jëmbat euh, di defar làmp yi di di di di peinture koñ yi di wut seeni arekaar ma di ci soññ ñëpp nag képp koo xam ne yaa ngi ci Paléne rek na nga dugg ci biir biir groupe bi dugg ci groupe bi dugg ci it li nga xam ne ñu ngi koy def ñu ngi koy laaj nga di ko joxe ñu di ko joxe li ñuy laaj nañ koy joxe weer wu deewu ne ñaar téeméer yàlla am na ko di dagg carte membre lu ñuy woote nga wuy ji loolu mooy mooy doxal groupe bi maa ngi ciy sant ñëpp nag di ko di soññ nag dina ci biir di soññ ñëpp parce que yéen ànd ak yéen rek yéen xale yi bu ngeen nekk seen yaay a ngi ci seen bàjjan a ngi ci seen maam a ngi ci bu ngeen toll rek naa ko yëg di sant baax tey gërëm la jërë ngeen jëf. wax ne ñu ngi fii ci Paleen nag euh, di ñaax rek suñ mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo nekk ci gox bi di ci quartier bi di doon soñ soññiwaat rek xanaa di wax na daal xanaa. comme ni nga xam ne noonu lañ ko defee woon ci garab yi ci ndigalul kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekkoon muy euh, sëriñ Moustapha ci ndigalul sëriñ Fall di ci ndigalul sëriñ ci garab yi nga xam ne moom lañ doon soññee ñoo ñaan yàlla suñu borom ndigal la nga xam ne joxe woon nañ ko yàlla bu ci benn murid des ginnaaw lépp yàlla na ko so ñi ci ñëpp farlu te matal ko loolu na comme soññe woon na ci ba ñoom mu àgg ci kilifa yi garab yo moom am na ci yoo xam ne jëmbatoon nañ ko ba ñoom kilifa yi ñoo ko tàmbali woon léegi nag ñu ngi ci jëm ci lamp yi lamp yi ñu ngi ci ñaax képp ku nekk ci paaleen rek moo xam yaa ngi ci biir groupe bi moo xam yaa ngi nekkoo ci biir groupe bi képp kuy dégg suñu kàddu daal da nga xam ne ah, ñu ngi lay woo ci biir paaleen ci kanam gi jubluñ ci dara lu dul maanaam ah, ni Touba ci kanam def rek seetal dëkk bi ak leeral dëkk bi ak aar dëkk bi rek lépp nag ñu ngi ko acc ci ndigalul kilifa yi kon nag ñu ngi ciy ñaan ah, mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo fi nekk yëpp rek Euh, ñu dugal ci seen loxo bu baax a baax ñu nekk ci biir ñu dugal ci seen loxo te sàmm ko te aar ko mooy 1000 francs yi nga xam ne moom lañ ciy laaj ñu ngi ñaan yàlla suñu borom ngeen jàpp ci euh, te def ko ni nga xam ne ko njiit waxee weer wu dee 1000 francs loolu yaakaar naa ne yomb na euh, murit bu nekk te Cheikh Ibrahima rek lañ ciy liggéeyal nag ñu xam ñu xamee ko noonu kon ni ñu ciy mbokki taalibe yi nekk ci paaleen yëpp képp koo xam ne yaa ngi ci biir groupe bi ko ci mën a woo na nga leen woo ci biir waay toll rek nga defe ko ni nga xam ne noonu lañ ko bëggee kon nag liggéey baa ngi noonu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu